salaamaaleykum wa rahmatullah mm, xam naa damay def vidéo bu gàtt rek euh, xam naa tey moom du ma am jot live lool lool lool ma am ci yu may waajal juste ma damay def live bi pour tontu ki nga xam ni euh, pas tontu sax mais pour leeralal euh, ki ñuy wooyee góor gi gàllaay nekk magu murit bëgg ko tontu parce que dafa teg samay wax après toftal ci ay waxam donc man moom ku ma xam-xam ne aussi samay wax moom.

sama wax yi lay jël ci ay yéeféer xam ndax dégg ngeen ma wax buñ la waxee daawa ci islam mooy nga woo nit ñi jëme leen jële leen ci jaamu ay xërëm yóbbu leen ci al wixdaaniyatu mooy jaamu yàlla moom kott maanaam min ibadil asna jële leen ci jaamu ay xërëm yóbbu leen ci ki nga xam ne mooy allah ci leen ci lan ci baatu yàlla kot jëme leen ci lan ci tawxiidu tawxiidul uluhiya jël leen ci tawxiidul rububiya yóbbu leen en yóbbu leen tawxiidul uluhiya yóbbu leen tawxiidul rububiya yóbbu leen tawxiidul asmaullahi wa sifaatihi donc min ibadatil asnam ila al wahdaniyati llahi subhanahu wa taala xam ndax dégg nga li ma xam ne dangaa ji mooy ba yàlla yónni yonent bi saa salaam daf fekk waa màkkatul mukarram di jaamu xërëm nga fekk waa makatal mu karam di jaamu ay nit ni ñoom yett ay xërëm di leen jaamu ñii yor ay yàlla tàndarma ñi yor ay yàlla ban ñi yor ay yàlla nangam sangam ay laat ay manaat ay hubal yu deme noonu yonti bi ñëw yàlla yónni ko ci waa yàlla yónni ko ci àdduna bi boole seen pour nit ñi bàyyi jaamu ay ñoom laataat ñoom manaataat ñoom hubal ak yu demee noonu ñëw jaamu yàlla moom kot moo tax alquran yàlla ñëw yàlla ñëw di wax ni ajaal al alihata ilahan waxida inna hada la shay'un yuraad aw inna hada la shay'un ujaab ndax yow mi yàlla yóbbu ajaal al alihata ilahan waxida ndax da nga bëgg jël juñ yàlla yëpp def ko benn yàlla moom kott inna hada la shay'un yuraad lii mbir la boo xam ne lu jar a dello la lii mbir la boo xamante ni ujaab lu yéeme na xam ndax dégg nga li moo xam ne donc yonente bi ci loolu la ko yàlla yónni woon saabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmaun donc ba ñëwee topp dégg ma asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu muridulaay maa ngi lay nuyu di la ñaan sa jàmm ak sa jàmm yaram olof dafa wax ne ku bàyyi am xët dana nàcc waaye nag gaa dama yaakaar ne ku bàyyi leen ci seen li nekk te tegoo leen ci seenu ànd danañ dépassé limite ndax man damaa yaakaaroon ne Sénégal bañ gi fi mag ñi nekkee woon ragal yàlla gi ñu fi nekkee woon wéetal yàlla gi fi nekkee woon mag ñi bi fi jóge ba seeni set def nit wax ne nan génne nit ñi ci jaamu nit yóbbu ko ci jaamu borom nit mu naqari leen waaye lan ngeen bëgg yéen ñi ngeen xam ne nee ngeen ay sëriñ ngeen dama koy wax ndax léeg-léeg ma dégg ñu naan tax sax euh, gi euh, du muy dëgg waaw dama muy dëgg moom wax dëgg yàlla bon Cheikh Gueye xaw ma murit nga am xaw ma doo murit man dama japp ne bu dekkee murit nga lu jitu ngay protéger ngañ dem ba géy waron nga wax genn wax ci ba ahna ton di saaga Cheikh Ahmad Bamba ndem murit nga deug keroog bi Ousmane Sonko tal, Touba tal bërëbu seigne Touba bi manam muy Touba waron na la ci lu melni ndem nga waron na ci bi nu mu tudd Mola Morgan ci bi Moussa Camara ci bi gig yi ñoom ñëpp taxaw di saaga Cheikh Ahmad Bamba ndéem murit nañ dégg ci bi ñuy taxaw di saaga sëñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre bàyyi Cheikh Gueye murit mu la bëgg wax ñaar damay wax ngañ dem ba li mu wax maa ko waxaat waxaat ko ne weesu weesuwut nga ñëw ci réew boo xamante ni ba ñuy xam lislaam bàyyam judduwut réew moo xamante ni ba ñuy dem ci tawxid moom ndayam juddu mu ñëw ne daf ñuy jële ci ibaadatu jaamu suñuy moromu u ibaad maanaam suñuy moromu jaam jëm ci jaamu yàlla moom kott loolu reewal ne la laa wax man maa ko wax parce que baatu daawa fu mu am wa in kaanu min qablu la fi dalaalin mubin lu jiitu daawa di ñëw day fekk nit ñi nekk ci dalaal mbiin ci réer bu biir ñi fekk soit ñu nekk ci kéeféer wala ñu nekk ci bokkaale wala ñu nekk ci li nga xam moom mooy bu biir kon ngañ dem boobu mu bëgg wax soit dafa fekk ñun sénégalais yi nga xam ni daawa maanaam biñ ñuy defal ñun dafa ñu nekk ci réer dafa fekk ñu nekk ci wala dafa ñu nekk ci bokkaale Baye Cheikh Gueye bëgg naa mag bu ton nii bu demee bay wax na gëstu démb ña doon wax ña wax wax ji tey na gëstu seen waxi démb ba noppi wala mu toog mu laaj leen dajale leen nga laaj leen ana lan lañu xalaat ci li nga xamante ni moom mooy mouridisme ana lan la ñu xalaat ci li nga xam mooy tijaaniya ana lan la ñu xalaat ci li nga mooy xaadiriya wala wala lan la xalaat ci sufiyanke ak lu tasawuf donc man jàpp naa ni naafiq baaxul man jàpp naa ni magum yor-yor ci réew lu jaramaytu la. dafa jot nak murit yi nek ci bir murit yi japp na ñom dañu wara a soppi yoonu murit ngeen genn wané seen bop man japp na ni murit yi nek ci bir yoonu murit japp na ñom dañu wara a soppi yoonu murit nañ genn wané seen bop murit yi japp na ay murit lañu japp na dañuy teunku ci tasawuf ak le seigne touba baye fi nañ genn wané seen bop loolu la loolu la ne dina ko tontu Baye Cheikh sama tontu ci beuri bu ñu waxee daawa mooy saaba yi yonent bi saasam ba mu ñëwee yàlla yónni ko daf ko yónni ci li nga xamante ni moom mooy waa Makka ak la ko wër mais mboole seen àdduna bi mu yónni ko ci li nga xam dafa am solo ñu rappelé ko mooy li jiitu yonent bi di ñëw la moo amoon Makka ku am sa doom bu jigéen rey la moo amoon Makka duñ jaamu yàlla la moo amoon Makka yaakaaruñ yàlla lan moo amoon màkk maanaam dañ doon bokkaale yàlla lan moo amoon màkk ay yàlla yu bëri yonte ba mu ñëw mu indi laa ilaha amul benn buur illa allahu lu dul ket mu yàlla kot laa ilaha baat buy dàq la illa allah baat buy saxal la da ngay dàq li nga xamante ni moom mooy kéeféer da ngay dàq li nga xam moom mooy bokkaale da ngay dàq li nga xamante ni moom mooy leneen li ci aju ci réer ak demee noonu nga saxal illa allahu nga saxal baatu yàlla moom kot moo taxoon ma wax ko sànq ne yéefee dañ doon wax ni aja alal alihata ilahan waaxida pourquoi nga bëgg yonent bëgg def yàlla yi benn yàlla kott saabatul kiraam ridwanullahi alayhim ajmain mosuñ jugu dëkk lu jug dëkk boobu dafa nekk dajale ay yéefee ak ay bokkaalekat loolu mooy daawa daawa bi nag bu ko bàyyi ngañ bàyyi ngañ turee waxee nit ñu toll ko c'est parce que tout simplement li mu wax saaga la ci ñun sénégalais yépp mooy lu jiitu ñoom Pastef di ñëw lu jiitu ñom pasteur di ñëw ñun dañ doon nek di jaamu ay mor suñu moromu nit lu jiitu pasteur di ñëw ñun amuñu l'islam parce que al islam huwa al istislaamu lillah islam biñu wax bi ànd ak alif lam ma'rifa bi yàlla doon wax ne al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaamu diina raditu lakum al islaamu dinan al islam bu ànd ak alif lam ma'rifa muy islam bi ñu xam muy womatul yàlla subhanahu wa taala mom kot al lillah donc ñom ñu né jébbalu bi talibé di jébbalu ci sëriñ ci bokalé la dañ ko wax ñom ñu né bi nga xamanté dañuy taxaw ñu né ñom ñun ñëpp dañoo ni dañoo ci ñu ñun ni wax donc li wax ñom c'est-à-dire au fait moy lañ doon wax démb moy pass pass sen pass pass la ñom donc bu leen jéem layal Baye Cheikh Gueye Mouride donc man gis na ni euh yefu naafeq mo am ci yëfu yefu naafeq mo am ci yoon bi man nak nekk doonu ma woon la tondu bu fekkee teguñu won samay wax tek say wax mais man nak dama di ko xamante ni samay wax mom boko jëlé jëlee toftal ci say wax dana leer laat samay wax Sénégalais yépp xam li may wax ngañ ngañ dem ba Touré li mu bëgg wax mooy ñun sénégalais yi lu jiitu Pastef di ñëw maanaam amuñu islaam amuñu ngëm-ngëm amuñu li nga xamante ni moom mooy wéetal yàlla ñoom nag ñoom Pastef dañoo ñëw génn ñu ci loolu ñu nekkoon ñun pour dugal ñu ci jaamu yàlla moom kot mooy lan mooy addiya yi ñuy joxe Touba addiya yi ñuy joxe Tiwaawan yi ñuy joxe Medina Baye jaamu suñu moroomu nit la teewlu xel kom ñuy dem di liggéey xel kom jaaga toolu jàppandal yi ñuy dem di liggéey ji yoonu sëriñ bi mu Baay Faal di ko liggéey nga dem Touba ñu dem di liggéey ay nu toolu ay nu maag yi wala toolu toolu maam alaaj yi fële ci Gosaas loolu ñuy def yëpp dañuy ñoom dañoo jàpp ne jaamu seen moroom nit la donc ci loolu la nga dem ma Touré di wax waxul leneen man nag yaakaaroon naa ni Baye Cheikh Gueye rus rusloo nga ma trop yaakaaroon naa naa dégg ci saaga yi saaga Cheikh Ahmad Bamba rusloo nga parce que yaakaaroon naa naa la dégg ci défier bi ñuy défier seen Mountakha rusloo nga ma bàyyi Cheikh Gueye xaw ma bàyyi xaw ma xaw ma lan rusloo nga ma parce que tout simplement yaakaaroon naa ni taal gi taal ci biir Touba lañ saccagé Touba ci loolu laa lay njëkk dégg mais du mën a dégg ci défendre waa Pastef donc sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala